Tafa maa ngi lay nuyu di ànd ak yow tiis bi nga xamante ni dal na ci monde làmb yëpp muy génn àdduma Moussa Dioum yan témoignage nga ñu mën a defal ci Moussa Dioum. waaw jili ginnaaw bu ñu sante yàlla julli sonent bi di gërëm suñu ñaari waajur bu baax a baax di nuyu waa parcelle yëpp 1 26 di nuyu internautes yi di leen jaale lu ñu bokk di jaale waa parcelle yëpp Moussa Dioum Moussa mën naa ne suñu kilifa la sunu xarit la ku baax dem na. man jili du ma dugg ci lu Moussa Dioum yëgul du ma dugg ci lu ñu waxtaanul amul combat ak émission bu ma def dara boo xam ne ne du ma jox xalaatam su ma defee boo xoolee ñu ne diw kàddu yi wax rafet na nangam loolu dama koy roy ci Moussa Dioum wax ñu ne ko accam te boo waxee ñu ne Tapha bëri na jàmb ambiance loolu dañ koy royaat ci Moussa Dioum foo ko fekk kaf foo ree ñu koy ñaanal daal fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee yàlla atte ko ci yërmandeem xaritu ñëpp di boole. chaque jour boo xoolee mbër parcelle yi Moussa ay adversaire am sax la gën a jaxasool ñi nga xamante ne ay dëkkandoom lañ kon loolu ñun ay qualité la yu ñuy royaat ci moom suma xarit dem na sama mag dem na ñu dëkkal ñoom aatu aatu day wax mu ne ma Moussa Dioum nee na ma sànq yaa ko doon rey ci whatsapp bi fu ma toog maak moom ñu ngi wax whatsapp maanaam tey lu ma roy ci moom dafa bare ma koy ñaanal rek ñàkk nañ ñun ñëpp. ndax tey man lu ma la mën a wax ci moom keneen bu damay toog dalay waxaat lu plus kon ñëpp a ñàkk waaye am nañ xel mu dal ci moom ñu ne dañuy ñaan li mu am yàlla nañ am li mu am ndax a ko ñaanal ñëpp a ko seetal ñëpp ko bëgg kon moom loolu rek lañ koy ñaanal lii mu am tey yàlla nañ am ñun lu mel noonu waaw loolu rek dafa jot a ñaan di ko ñaanal tamit njaboot gi yàlla may leen xoolu muñ fi mu leen féete woon suñu borom féete leen foofu. koo xamante ne Moussa Dioum ci moom wax nga ko sànq dañ koy gis ci yow Moussa foo ko seen dafa mën a kaf mën a mbalak fu mu nekk kenn du ñëpp tey ba lan nga mën a fàttaliku ci moom loo xamante ne dootoo fàtte ci moom. waaw mooy jàmm jooju ma lay wax. Hmm. bëgg bëri jàmm. bëri kaf foo musaa Dioum ñun xale yi ñun ñi nga xam ne ñooy mbëri ndaw yi parcelle ñun la gën a gaayanool hmm. da ngay foog ni ñun ñooy ay moromam. Hmm. billaahi wallaahi taala nee naa la ku wax si moom wax la lu ëpp li ma la wax. jàmm ji man ak ak ak ak ak bëgg nit oyof. jaxasoog ñëpp loolu dama koy roy si Moussa loolu lu may marqué la ci moom su may waxtaana moom comme sama morom yi laay waxtaanal loolu lu ma marqué la fu ma ñëwee damay daw dugg WhatsApp wax ak Moussa Dioum kon loolu noonu tey gëm naa ne dina ma manqué kan laay waxtaanatel yenn yu bëri làmb boo waxee billaahi amul làmb booy gañ ak booy ñàkk boo xam ne du la wax ni làmb ji boo ko bëree nii lii ngay am boo ko bëree nee lee ngay am te loolu ngay gis làmb da ko dund da ko tarbi da ko xam liñ ñàkk dafa rëy nan ngay wax sa moromu nawle yi nga xamante ni da ngeen a bokk làmb di ci di ci di rek moo leen lan nga leen ci waaw lii rek jàngat la ci ñun ñëpp lu waay yan woon nga wàccee ko lu waay doon def sa dënn bi nga dindi ko tey Moussa Dioum maanaam tey jàngalaat nañu àdduna tey moom ni mu jaxasoo woon ak ñëpp tey mbër mu ne gis nga ko fii ni mu woyofee bëri jàmm te ay adversaire am ñëw nañ fi ay dëkkandoom ñëw nañ fi maanaam di wax ñëpp. nañ wàccee war xol yi sport pour benn tàkku tàkkusaan la mais bu ñu noonoo nañ rafetal lépp Moussa Dioum de loolu la Moussa du def suñu nopp yi te ñun loolu lañ fas yéene di ci dox di ci wëy buñ duggee ci làmb di nga xam ne ñii ay mbër lañ waaye bu jeexee na dañuy xam ne ñii ay nit lañ ay doomu aadama lañ dañuy kaf dañuy foo dañuy sëg ak ñëpp jàmm ñu bàyyiwaat xel que ni Moussa Diop dem na te jeune la demee ñu gën a lu waat rek fonk suñu sport waaye gën a jaamu yàlla xam ne àdduna dafa jeex ji ñaata ñaata mbëri ndaw ñoo dem suñu xarit yaa ngi dem nañ bàyyi xel loolu suñu xarit yi ñu ngi dem te fi ñuy demee mooy fi seen njaboot soxla bu ñu fàtte suñu borom tey Moussa Dioum ci fukki fan yu mujj weeru koor la dem kon am nañ xel mu dal ci moom am nañ xel mu dal bu baax ci moom waaye it ñun ñu fi ñun ñu fi bàyyi soññ nañu nañ gën a jaamu yàlla bu ñu waree julli ñuy julli bu ñu waree woor ñuy woor bu ñu waree dem sport ñu dem sport ndax sport yi fu àdduna la amul xale amul mag nee naa la Papa Yade dem si yàlla noppalu na Jules Balde Junior dem si yàlla noppalu na Moussa Diouma ngi nii tey noppalu na yàggul Moussa Balla Gaye yàggul xam nga te ñooñu ñëpp fi ñuy demee à fleur de l'âge même pas Moussa Dioum moo ci am 40 ans ñi si des ay vingt cinq 25 ans 26 ans soññu la daal di góorgóorluwaat di ko ñaanal man mënuma dara lu dul di ko ñaanal te du ma ko fàtte ba ba may man fekk ji ko ba ma koy fekk ji di wax képp koo xamante ni yaa xam nga Moussa Dioum mës nga koo gis mës na laa bégal benn yoon ñu ngi lay sàkku nga ñaanal ko ak képp ku mu fa fekk ak képp ku ko fay fekk yàlla yërëm leen xare leen àjjana. Ibou Ndiaye maa ngi lay ziar di bokk ak yow bi nga xam ne dal na ci monde lamb yëpp. muy génn àdduna Moussa Dioum yaakaar naa ni ci sa stati laa ko njëkk a gisee. Euh, nan nga ma mën a wax ci ci Moussa Dioum. waaw xam nga sa njéeg ginnaaw bi ñu sant yàgg ñu ngi jóge si yoon bi di sant suñu ñaari waajur waaw di ñaanal suñu grand Moussa Dioum yaaga yërëm ko taxaare ko aajana waaw affaire bi daal mu ngi noonu ñoo ko gisandoo xam nga grand bi dem na di ko ñaana fi mu jëm yàlla na ko gën a fi mu jóge si barke Seydina Mouhamed waaw ni ma ko yegee mooy dama toog ba ay timis bi noonu rek après ma dégganteeg raq ji parce que bi mu nekkee hôpital dañ doon déggante après si nga dégganteeg si nga dégganteeg raq ji bàyyi gaat après si nga ma ne euh, mbër ma ne ko waa mu ne ma grand bi noppagu na def ma ne ko koy waaw yow jour boobu kay mu ne ma non ma ne ko non non nekk yow est-ce que sa waay da day day rek doo ko yee ba xam wala médecin bi nga nga wax est-ce que médecin bi xool na ba am parce que instant wu mu ne ma ba instant bi muur nañ ko quoi pour dugal ko si morgue sama àdduna tukki parce que koo xamante ne yéenay toog di contagandoo di entraîner di foo mbër ma ak moom fecc ak lu ne di ànd di dem fu ne kooku nga war a toog ba dégg ne mënatul waaw dafa doy waar mais nag bon mbiru suñu borom nga rek waaw ñaan yàgg yërëm ko taxaare ko àjjana rek sëñ ji loolu mooy àdduna vraiment waa koñ bi dinañ wéet waa parce que dinañ wéet xam nga waa reefan parce que Moussa nitu jàmm nga woon yaakaar naa ne xogam te nekk nag nitu sutura booy dégg nit ku am bàmmeeku biir mooy Moussa Dioum nit ko am te ne bëggoo ku ko xam nga ku ko ku ko ku ko xamal dara billaahi am nitu nekk nitu sutura nekk ku am ngor waaw ba deewaage ak ngorom di ko ñaanal suñu borom yërëm ko te xaaree ko àjjana waaw vraiment xam nga ñu mais Moussa Dioum moo tax tey suñu amee 1000 francs ba Moussa Dioum ma tax tey ngeen ñu nii micro ñaata doomu aadama ñoo nekk fii si baas bi hmm. waaw Moussa Dioum moo tax ngeen taaga ñu nii micro parce que tey si gi ñuy yëngu di si suturoo di si am gi ñuy dimbale suñuy waajur Moussa moo tax ñu am amour boobu parce que parce que gañ juddoo fi gañ yaroo fi gañ màggee Moussa Dioum ñëw nekk xaga di bëre xam nga ñu nekk ay booyu ndaw di daw si ginnaaw bu daanee bu ñëwee koñ bi ñuy daw xam nga Moussa bu doon dox si mbéb sax dañ ko doon toog bu demee entraînement ñu ñëw toog di ko seetaan gëmee wuñ ko woon sax waaw ñu dem nag ba commencé suñu borom tamit ñun xiir ñu si affaire yi ñu necc xam nga di si góorgóorlu boo bëggee gi yëpp moo ko def si ñun muy bëre bi muy ambiance bi muy yëpp lu ne si ñun amuñu fayam moo tax. loo xamante ne doo ko fàtte ba waaye barki démb rek restaurant bi fii si kaw tàgg bi man ak moom ñoo dem foofu noonu. semaine bee passé ñoo dem foofu noonu di reeri foofu noonu reer ba pare si resto bi toog man ak moom nii di waxtaan waxtaan gu bëri man ak moom ba bi ñuy génn sax bi ñuy fay femme bi daba moom mbër mu ngi fecc xam nga mbër mu ngi koy naan di mbër mu ngi fecc noonu ba ma koy tàccu ñuy ree vidéo yi su ma koy seetaan sama portable damay sax tiit parce que Moussa Dioum ñaari nit yu mu gisoon ñu taxaw faa mu fecc a ba yéen ngeen kontaan mu door am jàmm mu door a dem moom noonu nga ko suñu borom bindee woo. Mm. nag moo ma gën a mag si Sénégal bii passé néegam ngaa ko seetaanee ñu tëdd nii di waxtaan waaw ba mu naa ma mbër sama góombi de nice quoi fan yi moom mu ngi tane waaw ma ne ko waaw mais affaire yi day tane mbër ak ah gii moom xam nga ne de demal def affaire yi day wow waaw affaire yooyu noonu mu ne ma noog yi day dañ sax ah affaire yooyu noonu xam nga sama combat bi tamit bi ma koy préparé ñoo doon contact man ak moom mu may tax ak ay gants xam nga di ma naan déplacé wu gauche bi nga war di dóor sa adversaire nii yu bëree nii ak nii ak nii mais kooku nga war a xëy tiim pax di ko suuf dafa metti métti de mais nag yàgg a baax na yaa na ko yàgg itam dafa ko àjjale seen jiw jërëjëf. ni nga maa ngi lay nuyu. di ànd yow ci tiis bi nga xamante ne dal na ci lu làmb sa mag di di sa lépp ci làmb muy Moussa Dioum génn àdduna Moussa Dioum yan témoignage nañu ci mën a. waaw Baye Djili gannaaw bi sant yàlla julli ci yéen tamit sant su ñaari waajur ñu ngi bëggee ñëpp waa di rafetlu seen teewaay waa di sant mbooloo mi yëpp. Sadio moom xama nga demam bi bet na ñëpp surtout man mii nga xamante ne chaque jour guddi ak bëccëg ma ak moom guddi ak bëccëg mu jël ma rakkoo ma ma jël ma rakkoo man tam ma magoo mu Sadio mosuma ko mere mosuñu xuloo mosuma mere bañ naa ko ba xool mbër rek laa ko doon wax mbër du ma ko sax mu Sadio mbër mu ne mbër fu ma toog heure añ day jot indi foo nekk ma ne ko maay bi gàlle mu ne ma ñëwal ma ñëw ñu añ ñu teg ataay xam nga heure entraînement jot dem entraînement duñ tàggoo maag moom bu feebaree ñëw naa xama tiim ko bi bi ko feebar njëkkee dal boobu affaire yi aggravé wul quoi ma jógee fi dem voyage bi ma ñibbisiwaatee ñëw fekk ko ni ma ko fekkee daal neexuma jour boobu ma ne ko waa mbër affaire nii la la nii la la mujjee def mu ne mu waaye gis nga de affaire yoon fan yëpp ma fiy baagante bañ jël ko yóbbu ko hôpital xam nga affaire yi daal gën a monté daal ba mooy loolu mais vraiment nit ku baax la nit ku ñàkk ki ñaan la Moussa Dioum saa boo ko gisoon bëñam rek ngay njëkk a gis xam nga mu boole ñëpp bëgg ñëpp képp ku ko mere wala dara da nga ko mere noon rek mais moom du tooñ kenn bëggul ku ko mere sax billaay wallaay moom borom xol bu rafet la bëggul kenn ku mer kàddu yi jàpp nga ko te dootoo ko fàtte ba kàddu yi bëj a dénkante dénkante maag moom mooy message may xool sama téléphone chaque jour rek dépassé rek pour que stade yi ne waaw papay mbëri affaire yooyu noonu mu ne ma non léegi yaay seen baay jox naa lépp ma ne ko non mbëri yaa ngi fi ba ci kanam mu ne ma non baal ma jox la lépp rek oninga message boobu ba léegi mu jël ay photo nii envoyé ma photo yoo xamante ne nii boobu dama nekkoon fële dama nekkoon Thiès ñu sélectionné ma foofu ma bu muy bëreeg saa Thiès ma nekk booy bu ndaw mu envoyé ma photo yooyu noonu photo bi ma koy xool nii boobu ba léegi day mel ni Moussa laay gisaat billaahi day mel ni tey dafa teew nii di wax ak man barki alxuraan mu nekk koo xamante ne dama ko bëgg bëgguloon sama bopp bëgg ko mu def ko xama koo xamante ne da mag la dama bokk ak moom ndey ak baay def ko lépp billaay walaay fut nekk gars dañ may wooy foofu suñu waa village di leen sant bu baax a baax di bokk ak man naqar bi xam ñu ngi may woo di ma masawu xama mais Moussa yàlla bu ko fayee xolam non àjjana lay jëm direct billaay wallaay aha ñu lay nuyu waaw ah, maa lay fay ba jide waaw sant alhamdulilah jaale Moussa Dioum mi nga xamante bokk nañu bokk nañu ko ci axlu làmb yëpp yan seede nga mën a def ci Moussa Dioum en tant que ah ñu ngi wax mbooloo mi yëpp ñu ngi la koy jaale yow tamit di ko ah, la rek quoi demoon maa ngi ñëw la rek di ko masaw bu baax ay raxam ak seen waa kër bu baax di ko ñaanal yàlla defal ko yërmande yàlla waate yërmande ci kawam ci barke alxuraan mais grand bu baaxoon la wax dëgg waaw mi neen dëwoon nañ ba sama combat mu mujjee bëri rek daf ma woo waaw conseil mu bu baax di ma ñaanal aussi ah te loolu yombul quoi mu xamul mbër bu mag xamul mbër bu ndaw. Hmm. lan nga gën a jàpp xam dafa oyof quoi nit ku oyof la wax dëgg yoon boo gisee ba ñi nga njëkk seen day kaf ak yamale ñëpp daal nit ku baax la woon macha allah dañu ko ñaanal rek yàlla def ko yër yàlla wàcce yërmande ci kaw barki alxuraan